dalee na jàmm ci xew-xew yi ci biir réew mi tey ajuma ñu tàmbalee ko ak coowal passeport diplomatique yi nga xamante ni jàppoon nañ ci ñaari député te nga xamante ni jamono ji ñu doon sàkku ñu daal leen di bàyyi ndiku ñu daal leen ko bañal waaye tamit ñu waroon a àtte démb daal nañ ko wëyal ba ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril bi ñu nekk Boubacar Biaye ak ki nga xamante ni moo Modou saal nag daal nañ leen di sa kaso ba laata ñuy àgg ci ñaar fukki fan ak benn bi nga xamante ni si la war a xamal ndax dañ leen di wëyal tëj leen ci mbir mi nga xamante ni lañ leen toppee muy luubal ak defar ay mbir yoo xamante ni jëm ci ay passeport diplomatique yu jaarul ci yoon ñoom nag li ñu leen toppee muy wàllu association de malfaiteurs luubal trafic de migrants blanchiment de faux ak usage de faux faux écriture publique authentifiée ñoom nag li ñu leen toppee nag ki nga xamante ni moom mooy jutoon mbir mi di El Hadj Diadji Codé lañ njëkk a jàpp ci mbir moomu daal ko teg mandat de dépôt laataa ñoo teg loxo ñaar ñi nga xamante ne jamono ji bokk nañ ci mouvance présidentielle bi Sadio Dansokho mi nga xamante ni moom tamit jàpp nañ ko ci bi nga xamante ni ki nga xamante ni mooy Salif Sadio daal nañu nangu base yi nga xamante ne sa la nekkoon mu mel ni nag l'armée bi ndaruñoo bàyyi mbiru mu sedd ndax daal amalaat beneen opération boo xamante tax nañu daal di nangu beneen base bi nga xamante mooy bu César Atoute Badiate bi nga xamante ni nga nekkoon ca Casamance yu bëri yu ci mel ni bu uh, Médiadiane Oupot ak Njabalang ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ay village yu nekk ci loxoog fa nga xamante mooy pôle Abdoul Alou Kassine Bassène nekk ca watu Gambie ki nga xamante ni mooy Cheikh Oumar Diagne daaj nañ ko tëj kaso ba ginnaaw bi nga xamante ne nag daan nañ ko yóbbu woon ca parquet ba ngi deel ko déglu ak guddi gu njëkk bi nga xamante ni amloon na ko fa nga xamante ni moom mooy ca division des investigations criminelles moom nag dinañ ko daal di euh, xamal tey euh, fan lay mujj mbir mi nga xamante ne lañ koy toppee ginnaaw bi nga xamante ni kii député bi di Djibril War daf ko daal di porter plainte ndax dafa yëkkati yoo xamante ni te dalalu ci dëgg loolu war loolu mu daal yoon ci fàttali nag euh, ginnaaw bu mu yëkkatee ay kàddu ci fukki benn ci weeru mars bi ñu lañ waxoon na nag buñ dina ñëw andi ay leeral ci mbir moomu taxoon ki nga xamante ni moom mooy Djibril War daal ko porter plainte ñu koy laaj andi ay preuve ci mbir yooyu nga xamante ni ci na ko waaye ba léegi andiwul mbir yu ni mel ba tax na tey jii nag dina xam ndax dañ koy tëj ci mbir yooyu nga xamante ne lañ koy toppee muy wàllu diffamation ki nga xamante ni moo jiitu woon Y'en a marre di Fadel Barro daal na dugg ci wàllu politique ginnaaw bu mu lancé li nga xamante ni moom mooy ab coalition bu ñu tuddee jàmmi gox yi jëmle ko ci xamante ni mooy élection yi jëm ci fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ginnaaw bi nga xamante ne def na ab bilan ci li nga xamante ne lañ génn mooy élection locale yi moom mu am lu toll ci 5 pour cent mu wax ne nag loolu ndaw na waaye terewul li nga xamante ni mooy coalition boobu di jàmmi gox yi nekk na ak coalition boo xamante ni ubbil na ñëpp buntu yi ndax am na yenn mouvement yoo xamante ni ci biir yu ci mel ne jàmmi Kaolack Daara Jolof Thiès ak mouvement Goudomp Debout moom nag nee na ubbil na buntu ñëpp muy waa coalition yi nekk ci biir opposition bi waaye tamit ñi nekk ci nguur gi ngir ñoo ànd ak moom ci liggéey bi nga xamante ni sumb na ko dañu jeexalee ak li nga xamante ni moom xew fa nga xamante ni moom mooy Burkina Faso ginnaaw bi nga xamante ni ñii jàpp ne dañoo laal ci faatu ki nga xamante ni mooy Thomas Sankara te tëj leen si ngir gund ñi nga xamante ne ñooy avocat yi layal njabootu Thomas Sankara ñoom ñi ngi sàkku nag ki nga xamante ni mooy Blaise Compaoré te ñu àtte woon ko te teewul mu nekk fa nga xamante ni moom mooy Côte d'Ivoire ñu daal ko delloo si ci bi dëkk ba mën ko tëj li nga xamante ni daan nañ ko ci kaw mbuy di des ci dundam gi yëpp kon dana nekk ci ginnaaw kaso bi loolu nag nekk sàkkuteef boo xamante ni ñi nga xamante ni ñooy Burkina bi ñu ngi koy sàkku waaye tamit njabootu ki nga xamante xamante ni faatoon nañ ko muy Thomas Sankara te ki nga xamante ni mooy Blaise Compaoré ñu jàpp ne moom bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon sooke mbir moomu. lii moo nekk li gën a fës ci xew-xew biir réew mi ñu leen jox di daje suba ci yeneen xibaar fii ci réew mi officiel la.